tey fukki fan ak benn si weeru septembre nekk journée spéciale si établissement islamique bu ndam ñu si doon honoré rek seen meilleurs élèves yi nga xam ne ñoo réussir si examen yi ak ñi nga xam ne tamit ñoo réussir ci concours yi si année 2021 bi ñu ngi ko doon amal fële sa bi bu UCAB di université Cheikh Ahmadou Bamba bés boobu nag ñu ngi ko ne woon kii di Cheikh Ahmadou Bamba Seye nekk PDG bu groupe DIP bu ndaam école boobu nag bokk na ci école yi ñu gën a ràññee fii ci Sénégal ndax seen ay résultats yu baax ci année bu nekk ci année bi rek seen taux de réussite mu ngi toll ci 64 virgule 56 pour cent waaye rek ci université boobu ñu ngi am plus de 1500 étudiants yoo xam ne nguur bi moo leen fa orienté ci ndaje boobu rek kii di Serigne Mamor Moutada Mbacké dal na fay teew ba yëkkati fa ay kàddu yu am solo. bu ñu demee ba gis ne. am nañu ay xale yoo xam ne dañ doon wax ay arabisant lañ te may wax ne man baatu arabisant ci boppam wala franco yooyu yëpp ñun dañ koy bañ li ñu bëgg mooy nit na jàng pour xam-xam langue bu mu ko mën a jàng rek na xam-xam waaye nag bu noppee na jàng diine yooyu ñaar boo ko boolee rek da ngay daal di am nit da ngay nekk nit bu dee rawatina bu dee lu jëm ci xam-xam jàng euh, lii laa ciy def ak ci dugg defe naa ne nit ku jàng du demee noonu da ngay def ba gis résultat soog ni lii la kon ñun liñ mënoon liñ mën a wax ci lii ñu gis tey ci jotaay bi rek mooy jàpp nañ ne liñ doon mébét ak di ko xolaat dog nañu yoon bi yàlla na ci yàlla dimbali. wax nga ñun duñu état ñun privé la ñu liñ ma li ma leen di wax léegi rek la mooy yéen ku ci état jox bourse orienté la euh, fu mu mën bu la orienté wala bu la orienté wul yow ñëwal fii ñun ñu jéem la jël jël la jël la en charge parce que bëgguñu seen njàng dog bëgguñu tamit ay moyens euh, kii ko loolu lañu man li ci des nag état la yi itam nag xanaa ñu ngi koy ñaan nag mu jéem a dimbale ñii parce que kat ñii dañoo am daanaka dañoo dañoo doubler seen effort ndax étudiant boo fi gis bu dee ci xale yi danay wax lu mu tuuti tuuti ñetti trois langues parce que li ñu jubloon ci ñetti langues yi mooy dañu bëgg kii nga xam ne mooy def science religieuse yi nga xam ne mooy civil yooyu d'accord waaye ki bëgg bu ñu jëlee benn année ki bëgg ki nga xam ne dafa bëgg a def lenn lu wàllu jëm ci scientifique kooku dañ koy da koy permettre bu demee bëgg def leneen bu fi jógee mën koo defal boppam. te am na ñoo xam ne bu ñu leen di jàngal puis mënuñu ne dañuy jàngalee arab di la jàngal médecine wala dara amuñu ñooy professeurs yi demee noonu mais li am solo mooy ki ki ngay jàngal na xam li nga koy wax. kon ñun li ñu amal solo mooy fexe ba étu xale bi xam làkk bi nga xam ne ku ko lu mu bëgg jàng rek am na ku ko mën a jàngale koo xam ne làkk boobu xam na ko. mbokk yi jërë ngeen jëf si taamu bi ngeen taamu seen seen 24 actu di leen jox di daje ba beneen yoon si yeneen xibaar ak yeneen actualité.